asalaamaaleykum mbokk parcelle rawatina waa Unité 12 ñoo ngi nuyu ñëpp ñëpp di nuyu tëggkat yi en tambour major di nuyu woykat fi teew yëpp yëpp yëpp ak supporters yi fan club yi ñu ngi nuyu ñëpp Mbacke Faye ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw Boucar. auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bañ sant yàlla di nuyu yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di wax jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim maa ngi sant suma sëriñ bu baa Baye Djili Mbacke maa ngi sant suma sëriñ bu baax Baye Djili Mbacke di jégalu waa quartier bi ñëpp waaw xam naa dérangement bi maa ngi tuug di jégalu leen ñëpp waaw di wax incha allah le huit ngeen ñëw gunge ma yàlla suñu borom defal ma ndam waaw. non naka nga préparé combat bi nga am combat capital naka nga waajee combat waa waaw Boucar combat bi waaj naa ko parce que man dama ma fekkoon ci ay entraînement sax yaakaar naa ne parce que dama entraîné sax bu gaay na naa ma wàññi. wallaahi fekkoon na ma ci man ne ci di entraîné ne ci di entraîné di entraîné xam nga ba combat bi fekk ma ci ma tegaat ko ci. waa ku ma xool xam ne liggéey naa quoi. xam nga mbër bi xam naa ko xamul làmb nii xam naa ko xamul làmb nii quoi. mais est-ce que ci fi nga toll ci làmb moo toll foofu noonu parce que xam nga nit moom ki nga xam mooy koo bëree rek yaakaar naa da nga waaw di dugg di xool ay combat am di xool ay faayam di xool ay kii yow daal yaa gën a xam yow. Madji Madji lan la gën a mën a. dama koy nëbbu ba bis ba bu ma ko waxee ni du am sens day mag la de. non waaw man xale laa. comprendre gars yi ñu dégloo waay xam man xale damay liggéey te lamb dama ma xañ lu bëree bëree bëri. boo xam amu fii bu baax. wallaahi combat bi 3 la duré. laajal gars yi 3 yëpp ñii kenn gisuma. maa yoon sama ruq. nekk di entraîné waaw yow fekk nga ma fi may entraîné xam nga nu mu demee waaw. mu mel ni combat ñor na la. waaw combat bu ma respecté la combat ma bëgg di si ñaan yàlla suñu borom moo yor ndam yàlla defal ma ndam mais jàmm sabru rek la am te liggéey naa li tax barki alxuraan ku ma dalante ak moom dina xam ne dalante nañ dalante naa góor yàlla dëgg te li ma ko waxoon laa koy waxaat danaa ko bu ma ñu ne ko kee mbër la. lépp xeex bëre yëg naa din contact naa. waaw Boucar boo xoolee sama kanam xam ne contact naa entraîné naa bu baax di sant waa Rock Énergie ñëpp nag gaa yëpp waaw mbëru parcelles yi fi teew yëpp maa ngi leen sant bu baax di ci jiital suñu leader Modou Lo maa ngi koy sant bu baax vraiment jàpp na ci combat bi waaw defal na moo daal surprise gaa ban teewaay nga maanaam ban yëg-yëg nga am si bi nga ko gisee tey mu déplacé ñëw teew si sa open presse yëg-yëg bi mooy maam mooy mooy suñu leader quoi ñun Modou Lo la ñu am ñun Modou Lo avant ñoo doon mbër ay lañ bëgg Modou Lo mooy suñu lépp dañ koy sant di ñëwaat Papa Sow waaw ñu koy sant bu baax di ko gërëm ak mbëru parcelle yi fi maa leen sant ñoom ñëpp sama waa écrit jegaan jegaan booy siin vieux top papa soos pap soosé ah suma papa Serigne Ndiaye aw ma fayam suma waa koñ sama booy koñ aw ma seen fay ñoom allah waaw ñoom Erika Bokar sama xarit sama lépp waaw di sant Black Black sama doomu ndey waaw Black maa ngi koy sant bu baax a baax a baax wóor na Serigne Touba Boucar Black ay millions yu bëri la def si man. wallaahi ay millions yu bëree bëri bëri la def Black def si man. Euh, combat bi ku ne xam na ne géejawaay ak parcelle bu ñuy bëre du yomb est-ce que combat bi xam nga dayo bi. waaw xam naa dayo bi quoi. derby la de. non waaw derby la man yàgg naa bëre derby. nekkul géejawaay tey la nekkul sama premier combat fii la man bëri naa am na ñu ma bëreel yi dëkk géejawaay am na ma bëreel dëkk jàmm gën ay caaro yi fépp waaw mais waaw yàlla baax na boogar yàlla ñu yàlla may tala fekkee waaye moom yow kooku mooy loolu barki alxuraan kooku noonu la demee nag làmb ji xam ma rek waaw waaj nañ li ñu war a waaj nañ ñaan yàlla rek yàlla moo yor ndam yàlla may ndam si kawam incha waaw exceptionnel def différence instant bi nga war a bëri la premier grand combat de sa carrière de ta carrière lan la jaral lamb lamb ji lan la la jaral. dégg nga ko. ma jaral mooy wax naa ko entraîné naa dem naa fi ma war a dem ñaana suma mbok di profito xam waaw waaw per Touba TV nañu foofu ñaan wam ne le wallahi bëggoon naa ñëw depuis kii boo xar woon na ma sax fekk ma nekk ci atal jumaa bi yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla jof ndam jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu ci jumaa ay ca am na solo yaakaar naa ne gis nga li xew imaam bi def nañ xadaratu juma nee na ñaanal nañ la ndam mu mel ni lii yëpp maanaam lu ay kaddu soññe la. waaw ñun Boucar sunu maanaam ñun sunu booy sunu diwaan bi nii. man mu naa ne maa yor wàllu organisation bi lépp maa ko yor lépp booy man ñoom ñooy ànd juga di defar ci jumaa ji lépp waaw imaam yi man samay xarit yi imaam douze yëpp samay xarit lañ samay waay lañ waaw sa waay di xaaral sa waay posé beneen question ma déglu ne kii di sa adversaire Madji Madji dama ko seeti barki dem écurie Waalo mu ne ma dañ jàpp ne moom mooy mat mais yow moo la ëpp doole moo la dàq bëre nee na jour ji loo def dalay wàccee moom moo tax nee na jour ji loo def wàcc moo la mag nee na yaa mag moo la ëpp doole moo la ëpp fit moo la ëpp lépp waaw loolu mi ngi suñu kanam mercredi yàggatul bu bientôt ay 5 jours 6 jours a ci des côté mobilisation côté mobilisation moom foofu xam nga woo autorité parcelles yëpp nañ ma ñëw jëndal billet yi waaw suñu président li bi démb seeti naa ko Lamine Diop waaw wax dëgg yàlla jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax waaw di woo autorité ndaal di woo waa ndaal yëpp waa waa jant bi parcelle daal 1 ba 26 a le maire Jamil Sané seeti naa ko waaw gise nañ mais gisaguma ko waa dina ñëw incha allahu rabi waaw. waaw. est-ce mën nañ jàpp ne parcelle la relève est assurée puisque grand yi yéen a ngi wax des ki ye doomu Itafa Sowé def ko def moom li koy def maanaam liggéey la rek liggéey moo koy def ak gëm sa bopp xool li làmb tere nga bañ ko def li làmb di bëgg nga koy nekk nga ci nekk chaque jour mooy gëm sa bopp entraîné xale nangoo toj ay coono yu méttee méttee méttee damaa daj ay coono yu méttee méttee boo xoolee sax sama poids dafa wàcc wàcc naa bu baax a baax a baax que commencement bi ni ma meloon parce que entraînement yi dama ko jëlee woon xam nga mooy loolu mais ma dem ba ci biir xam nga commencé diis sama coach Pambay tamit suma papa kooku nekkatu suñu coach kooku buñ naree am dara te lekk yàlla buñ ko yàlla may Pambay kooku suñu papa la kooku papa ak doom la ñu ngi koy sant bu baax et staff yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw boor li may woo rek di woo suma waa dëkk waa ceeb maa ngi leen woo bu baax a baax a baax waa ceeb aw ma seen fay ceeb lambay maxe tuguj xam nga waa waa Mban maay arrondissement Fatick bi yëpp waa siin waa Bikol maa ngi sant ñëpp di leen gërëm waaw di sant waa tuubaa saa Touba aw ma fayam maa koy sant bu baax di ko gërëm di sant waa Diofior Issa Diofior maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di sant Mam Ngor Mam Ngor suma xarit suma doomu ndey di sant waa Ngoy Aline Sile yëpp waaw gis naa paa yi xam nga ni ñu jàppee waa Ngoy Aline Sile yëpp maa ngi sant di leen gërëm waaw di sant suma waa waa Douze di leen jégalu bu di leen wax dérangement bi xam nga maa ngi jégal di sant sama booy suma grand Aliou Taban maa ngi koy sant bu baax di sant Sara waa course papis mi ngi fa maa ngi koy sant bu baax waaye Jibi maa ngi koy sant suma xarit ñoom Samba Fade Erika xam nga gaa yëpp daal bàyyi aw ma seen fay maa leen sant rendez-vous le huit jaajëf waaw le huit